long time Sénégal Papa Ndiaye. yegsi na yegsi na yegsi na yegsi na am from Sénégal Papa Ndiaye ci in the building salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk yeeg xarit yeeg dëkkandoo yeeg waa Sénégal njaay heure ba jot na yéen a koy laaj ma yegsi ci jàmm lan altine ak jàmm dal ak jàmm yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm ak fan émission nay neex na xol yi féex na xol yi neex na dëkkandoo yi neex na kër gi neex ñu ñëpp ñu ànd mu neex. baax sax ndax lan ci 2 yi lay neexee. 2STV boo fi duggee xam ne lépp fii dañuy bëgg seen xol di gundaandaat di neex altine yi yéen a gën a xam ne duma ci weet may sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ah di gërëm nag sama papa jooju jàll léegi di al amin di sàkk ci moom ñaan di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal xéewal li muy def am na solo te neex nañu te ñun dañ koy bége den wax waa Sénégal heure ba jotati nañ ñëwati nañ dañoo bëgg lu leen neex bëgg lu leen kontaan loo bëgg seen stress wàcc ba zéro te loolu deux heures su ko mën ndax luy naaw a nax sànni te lu biteel la mu def rek la saañ bay xeeñ maa lox loolu te bëggoon nag oto bi lay yóbbaale da ngay taxaw ci kaw tali bi dama ko namoon mu def shoppingam tey mais neen daf may fëlaale du ma laal bagage bi bees yi daf may laal yore olof nee na tiital leen ba ngeen foog ni du génn def ah cim ma nga noonu cecce mbere ala pipi naana dama ko namoon ma lool waaye tey ñëw na ànd ak kan sama jeeg jeeg ji mbang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 saf naa ñit ñi daal dëgg neexul parce que semaine bi ma toog absenté rek wax dëgg yàlla gis naa ci ña nga xam ne mooy ñi ma yëg wan nañ ma seen bopp ndax yëkkati nañ seen téléphone whatsapp message nañ ma via Instagram message nañ ma wax dëgg yàlla sama cofeel wax dëgg yàlla ci ñoom daa gën a yokk bu may wax sax damay kontaan ndax ki la bëgg moom yëg rek a koy fay téléphone maa ngi nii ñëwaat naa dama demoon doxi benn mission bu ndaw rek mais alhamdulilahi rabbil alamin ñëwaat naa ci jàmm ak salaam di leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen wax dëgg yàlla namoon naa leen mais tamit maa leen raw lu bari bari di leen wax rek émission bi doorati na yéen a ko tàmm ah bëgg ko saa su nekk def ko seen biir xol muy émission na neex saa su nekk nii lay demee du leen di 20 tubaarkàlla mu def bulaam bu baax mais dugg si leen ci 88 628 14 13 waaye ñu ngi ziar ki nga xam ne mooy sëñ Mountakha Mbacké wax dëgg yàlla mu ñëw démb Dakar mu nekk fierté waa Dakar yëpp waaye nekk fierté murit tamit wax dëgg yàlla ñu nar a amal li nga xam ne mooy ubbite ci li nga xam ni mooy Masaalikul Jinaan démb na wax dëgg yàlla xéewal tuuru na Sénégal sax ndax taw bi moom daa ñëw rek daanaka suñu borom sotti ko waaye yàlla na yàlla nangu ñaan yëpp di ko wax Mbacké na dara rek jàmm incha allah luñ ñaan rek yàlla mënta ñàkk su fi yaa ngi noonu dañ ko namoon wax na dëgg ñun sax suñuy téléphone daa balanké wu yi yàqu yuy toj ndax xale bi Sénégal ko bëgg di ko wër ko waaye xam ngeen ni man mosuma cee wéet ndax altine yi altine yi Seydina Mohamed la altine yi Seydina Mohamed yooyu nag bu ci jeeg ñëwee jeeg ji mbag borom xolu or borom xolu jamaa bi ne naa leen bëri ci mbartal la moom ay altineem day retoto day day day mel ni waru ajimaas tigadeke safara waa jeeg ci loo maa la ko wax nii bëri ci mbartal puus mu tàkk ñàkk a puus mu tàkk sama heure jot massage ji fëlaal ah, kon leen di maa fi taxaw avertissement yi jeeg bi la ba mu bëri doole jeeg bi ci rond point yi dëgg du neex ñu am contentement baax ci bokk ak yéen plateau bi Papa Ndiaye suñu góor Sofia ah suñu émission wa ngi noonu na neex di naan alhamdulilahi rabbil alamin sant santaat bu wéer doollee sant yàlla suñu borom bu baax ah nuyu suñu waa kër nuyu àdduna nuyu biir réew bitim réew surtout ak képp ku toog di seetaan 2STV di seetaan suñu émission bi nga xam ne tubaarkàl la émission divertissement kenn du ko raté tous les lundi ba jeudi dëkk bi yëngu rek ñu daal comme d'habitude rek. fii moom kenn du fi wax kenn sañse la maa la wax la ki sañse tey moom ku ne kenn fi taal lamp yëpp dëkk bi yëngu kenn fi sañse. maa la wax lii building online sama na parcelle yëngu na. ak Amady Diar. waaw en face bi doore bi dëkk bi yëngu ñu daal di couplé. ca ba mi moom waa kooku du moom moo. moom moo suñu téléspectateur yi ci 88 628 14 13 ñu mën a jàkkaarloog daal mais Sophia nañ ma afficher samay numéro foofu. ñu jàkkaarloog yéen waaye balaa ñoo dem fenn da leen wax Mamadou Yata Saay nee na mhm. képp kuy taalibe bëgg a dem Touba boo a ah, Aquaterra ñoom dañ lay jàkkaarloog yow wàññil ko ci paquet yoo bëgg ak noo ko bëggee ni la ko defee ñu yebal la ko ci oto indi la ko ba fa ko bëggee Aquaterra ñàkk ko naan wóorul man nii laay def ak moom Sofia su may naan ngay jëlaale di waxaale say biberon ak say bagage boo paree jox bi <laughs> loolu mooy Aquaterra Aquaterra la ñu wax eau bi nga xam ne mooy eau bu baax eau pure eau bi nga xam ne wax dëgg yàlla c'est une eau ozonée muy bi nga neex bi nga bi bi nga xam ne wax dëgg yàlla sénégalais ñoo ko taamu adapté wu adapté ko ci li nga xam ne mooy benn laps de temps ñu am ci benn euh, bouteille bu 350 millilitres mooy bu ndaw bi ngeen xam wax dëgg yàlla bu ngeen dem sport mën ngeen ko gàddu mais également bi nga xam ne mooy bu 600 millilitres bi nga xam ne foo jëm nga koo gàddu parce que fi nga xam ne mën nañ ko teg ci bi mhm. fu waay romb rek daal di mën a tàng bu tàngee neex bu seddee neex comme tamit yaakaar naa réew mi xàmmee nañ ko fi ñu toll nii ak Mamadou Yatassaye ak aquaterra lay doon moo ñu gunge suñu émission na neex kattanu yàlla ñu ngi nii di waaj Masaalikul Jinaan bi kon xam ah. na ne ouverture bi la 27 la ñu ñaanal Serigne Mountakha Mbacké Balay su mu yàgg fi loolu te am ak waa këram yëpp ak waa Touba gi yëpp di leen ziar di leen bëggee bu baax a baax ñun ñëpp ñu ngi waaj Masaalikul Masaalikul Jinaan ouverture bi ci kattanu yàlla ak Aquaterra moom lañ ciy àndal tàng du am dara du am naan ko rek féex bu tàngee nga mm. naan ko gën a féex li mu wax am na solo jeeg baa ngoog mm. man dama ko bëgg ndax ay wa daf may dëfal daf may yóbbu fu neex a neex waaye sant yàlla di gërëm suñu papa di gërëm suñu kilifa di gërëm suñu la mbàkki yu fay waaw ndax ñun amuñu lu Serigne bu la Rasuul wax naa leen ko waxati leen ko ne moo tax tey fu ñu neex taxaw wax te kenn du la convocation waaw waaw gore kenn dematu fa bu mu jaam ñu dog na yàgg na tey bu ñu amee suñu tuubaa jumaay Touba yee am suñu mala ma saalikul dinaan mii te waa woon waa Sadji fee waa Yoof laa yen Sadji fële ah wax dëgg yàlla dañuy gërëm Mambaay di gërëm bu Kunta Njaasaan Cheikh na saat Sadou tey fu ñu heure bu ñu neex foo toll dégg nodd tisbaar tàkkusaan foo toll di ko dégg baatu laa ilaaha illallaah bi ñu sant yàlla suñu borom mi ñu sàkk kon tey loolu mbégte la ci Sénégal ñi nga xam ne ñoom lañ bokk réew mi suñu mbokk chrétiens yéen tamit jàmm ci yéen ndax ni ñu bëggee jàmm ñu jullit yéen yi noonu ngeen bëggee jàmm mm-hmm. te yàlla yàlla rek la loolu neex Ah, waaw dëkk ak yéen dëkk ngeen bëgg jàmm mhm. ñun tamit ñu bëgg jàmm waaw baatu laa ilaaha illallaah moom wax dëgg yàlla ñun xanaa ci la ñu màgg ci la ñu judd màgg ci yaroo ci sant yàlla jour dañ ko daan dégg waaye Masaalikul Jinaan bi dafa nekk fierté sénégalaise parce que je pense que tey bu fekkee dañu jël euh, mosquée bu gën a mag Afrique de l'Ouest bu rafet ñu tabax ko def ci ay milliards yu bari loolu sagu islaam la. Hmm. du murit rek ko moom. laayeen bi am na ci wàll tiijaan bi am na ci wàll démb boo gisee teeru bu ñu teertu sëñ Muntaxa Mbàkke nga xam ne wax dëgg yàlla islam moo am ndam. parce que amul tiijaan bu toog këram génn na du ma séntu ku tedd kooku. ñëpp a génn teertu ko wax dëgg yàlla sunu mbégte la ñun ñëpp waa Sénégal. day wane ni rek jullit yi ñëpp benn la parce que boo déggee ci interview ñi ñu doon interviewé ci ci biir Masaalikul Jinaan danga naan bool buñ la laajee ci li nga xam ne mooy jumaa ji danga jumaay islam la mhm. wax dëgg yàlla mu nekk fierté di ñaan yàlla rek wax dëgg yàlla luñ fa ñaan lu nekk rek suñu borom nag am na solo ñaan balaa nekk nga jóge Touba jaar Tivaouane wàcc Ndiassane jaar kii ci ngay xam ne ñaan rek am solo mhm. buñ xam ne xaj waaw dañuy sant rek kay ba ma sama numéro ñu jàkkaarloog jaam ñi foofu laay jaar nag seeti Demba Gisee Demba Gisee nag xam nga ni mercredi dafay jaar dafa lakkale dafa ah, lakkale Demba Gisee lakkale na suba nag gan bu rëy laa andi aji jaara aji jaara bu leen suba nag xam ngeen ni aji jaara dina fi jaar waa Sénégal pare leen ah waaye Sidaat Bompon tam dina fi jaar de ah, mais nag Papa Ndiaye yow xam nga ni Bompon moom li mu génne daal eh, waaw mais Papa Ndiaye nag ci kanam ah. tuuti na gars yi xam ne ñëpp toog ci télé bi yëngu amul surprise bu rëy mi nga am léegi ah. ki réew mi bëgg non ki réew mi bëgg moom duñ ko wax nañ xaar loolu surprise lay doon ci Sénégal da ngeen dem seeti dem ba gisee clip bi ñëwaat waxtaan ak yéen ngeen woote ñu bëggee waxtaan lu bari ndax ñu ñoo far ñu ni nee na wala xanaa neex waaw waaw ko noonu yéen a ma gën a xam mi ngi noonu seen émission nay neex xam ngeen ni nii ma def ci sañse yi fëlaale ci tàngaay def ko toxu mu nooy nepp waaw waaw samay lunette kenn du bàyyi Awa Ndiaye góoru Sofia góoru jeg bi jantal préféré set neex xale yi bëgg ma may dëkk lu ma saf ci biir deux heures te kenn du ma tere <laughs> ba mu bëri doole ah <laughs> ba mu bëri doole xam nga ne kenn ñu jaawala ndax li wax ni dëgg la am na solo démb gisee am na solo li mu wax ni am na solo lool démb gisee li Sofia wax dëgg la dëgg la tey suñu jumaa ji fierté Afrique la waaw fierté réew mi ndax yaakaar naa ne dara gën neex nga ne ci dëkk ay nit di wàcc di siyaare seen juma wala du ko visiter. ah waaw ndax mën nañu visiter leneen mais visiter juma ci Sénégal la am. Ah, fii rek la loolu mbégte waaw ñëpp ñëw ziar si mbégte mënul weesu lool mooy li ma la wax rek ndamu ndamu ndamu Sénégal la waaye ndamu lislaam la. Mhm. mooy li ma la wax léegi da wax dëgg yàlla ñun ñëpp ci am wàll. te je pense que tey juma bi nekk na la nga xam ne rafet na Euh, construction bi. xoli sedd na daal dafa graaw quoi parce que démba wax dëgg yàlla teertu buñ teertu sëñ bi ak ñin ñi dem bàyyi seen yitte dem di sonn di buuxante lépp rek ngir mën a dem fi nga xam ne mooy Masaalikul Jinaan mooy Sénégal wax dëgg yàlla diine ñor na leen. Mhm. te la plupart ñi ma seetlu ñu ci bëri jeunesse bi la. jeunesse bi ñu ngi toppatoo li nga xam ne mooy diine ñu ngi ah, toppatoo li nga xam ne mooy foi bi nekk ci ñoom je pense que am na solo lii day gën tax rek wax dëgg yàlla xale yi gën a tegwaat ci yoon bi mooy yoonu yoonu diine lu baax ñëpp moo war a loolu jeeg maa la wax ne lu baax ñëpp ko bëgg surtout bitim réew ñoom bu amoon nañu yéene ñëw Sénégal mais ñoom ñëpp dañ koo statut muy fierté jullit yëpp képp kuy jullit rek boo nee julli rek tudd nga këru këru kilifa diine yëpp ak mm. këru kilifa aada yëpp doo bàyyi benn kër mm. mm. këru lislaam ñëpp ngi ci biir ok surtout waa bitim réew parfois nag ma daal di jéggi frontière yi rek waaw ak lu ma saf daa dugg bitim réew daal nuyu sama papa ji Moussa Seck ak waa këram mhm. ah nuyu Basirou Ndiaye borom Italie chéri Awa Ndaw dëkk bi yëngu ñu fa laale ak lu ñu saf rek suñu émission moo demee noonu fi mu toll nii gërëm suñu yaay Marème Ndiaye ko nuyu bu baax di kontaan moom ak suñu papa Alaaji Ndiaye ak suñu mhm. taaw boobu Abdou Toubarkalla kenn du moom gërëm 2STV gi yëpp mhm. suñu caméraman yi nga xam ne Toubarkalla dañuy sonn ndax ñun di def pour ñuy gën a belli ñuy sàjji Abdou waaw Abdou nee na ma il waaw loolu mënul ñàkk ma ñëwee nag ci kër gi damay sànq yow de bu la aw bi jàppee dootoo ko doon non bu ma ñëwee yow ñeme nga am fi mu ne bàyyi nga technicien yaa ngi laay laa fi mu ne jubali naa ba ci Abdou ma ñëwee damay ruube di xorom cin di fëlaale di leen teg seen ànd. xam nga Sofia lu mu xamul. <laughs> waaw Abdou moo ñëw ba ci man dama jéeg jëmbal. dama koy tàkk ah baax na demal duggal. Eh, <laughs> kon Sofia lu ci ji rek laa lay bàyyal. moom eh, rek yaa ngi defanteeg yow maa moom surtout nga xam ne bu ñu àndee nii si la ma yem ñu ko laal ak lu ñu <laughs> <laughs> ma ci ne. <laughs> nee na doon na fee di buuxante ci kër gi ci kaw ngay dëkk. ci kaw man kese ñi ci suuf xoolal par exemple lu ma neex ma sànni la. oui bon turandoo tata Marème ma defanteeg yow doo ko doole. mais maa ngi souhaiter un joyeux anniversaire à tous les natifs d'aujourd'hui euh, wax dëgg yàlla tey moom ñi fi juddu ñëpp ñëpp maa ngi leen souhaiter un joyeux anniversaire. spécialement maa ngi souhaité un joyeux anniversaire ak ki nga xam ne mooy Abibatu Ndooy Ndooy Maali Maram Ndooy doom day na bu janaaru as dëgg neexul amitié bu sincère a noonu depuis des années d' amitié dara ñaawul wax dëgg yàlla nit ku nekk ah bu bu ñuy wax ci Nabouja sax Euh, day jaral mu xuloo kooku baa mu régler situation ba pare doogay dem ci li nga xam ne mooy eggee ko mooy xarit bi wax dëgg yàlla amitié bu sincère a ngi noonu dundal yokkal wéral abi waxta ndooy maari mari ndooy loo dund lu nekk rek xaritoo day dëggu xaritoo day dëggu liñ leen wax dañ dem ba dañoo nduroo li may wax yaay Marème Ndiaye mooy mm-hmm. yow suñu yaay joo xamante ni yow moom ñàkk laa am wóoru rawatina ah, ci kër gu mel nii mm. ndax yow am na ci kër day dalal xel mm-hmm. ndax euh, doo benn nopp te kilifa du doon benn nopp waaw day am ñaari nopp moo tax yàlla defal ko nit ku ci nekk jox ko wàccuwaayam li mu moom yow gudd fan ak wér ak sa ah, jàmm rek lañ lay ñaanal di ko ñaanal papa El Hadj Ndiaye. mais Abdou Ndiaye nag yaay moom moo tànn jéeg bi ne moom lay ñaarele. Ah, kër ga toj. <laughs> tey moom bi ba ci toj na maa la wax li damay ñëw Sadji de. ah ñeme nga ah, yaay Marème Ndiaye d' accord na mooy yaay njaboot moo uuf ñëpp. bu d' accord eh, de d' accord na waaye damay ragal lu ndaw li. waaw lu ndaw li dama <laughs> koy supporté ne xale yi man lañ bëgg. <laughs> Eh, baax na fu ma ne xale yi bëgg boobu. mais jeeg des une minute bi nga doog a wàcc kon booba boo sëytee et fii rek laay toog nii def sama yëf émission bi bëgg a commencé ni ay 10 secondes rek ma wàcc fulaale. yow tamit boo nekkee sa kër tamit. engagement lay doon engagement total. bu mais soppe yi fan ngeen nekk 88 628 14 13. fu ngeen ne ñu waxtaan bëggee. ndax xam naa namoon ngeen Sofia namoon ngeen jeeg bi nangoon ngeen Papa Ndiaye damaa wéetoon tey nag Sadji leen ñu waxtaane léegi nag mënta ñàkk damay dem seeti Keba Seck rek ñu ñëwaat bu ko defee ngeen woote. ñu waxtaan acca ñu dem seeti Keba ñëwaat. aywa. aywa aywa aywaay. res res li mu wax Saliou Khoule moom la wax du. waaw Saliou Khoule. Bathie Diop ndaanaan kulli fadrin bi nga xamante ni moom mooy taalibe Cheikh bi nga xamante ni moo bëgg Serigne Touba. Bathie Diop bu la Kéba wax léegi war na la ko wax ndax nit ku yàlla baaxal nga na sa jàmm yàgg waaye ba tey ñu waxtaan ngeen dugg ñu bëggee li bëggee. li ñu wax fii xam ngeen ko ak tey li ñu fi am muy suñu jumaa ju mag jooju Masaalikul Jinaan muy féete jullit yi di féete Afrique di féete murit di féete tijaan di féete xaadir di féete laayen ah, dugg leen ñu waxtaane ko ndax loolu suñu mbégte la loolu yàllaa ko dogal ñu moom ko di ko bëggee di ko bëgglante Sofia ñëwal ci loolu nga ni waaw noonu daanaka xanaa damay sàppaliwaat rek. dëgg neexul waaw tey kay dañ ci teg ndax suñu yëf la dëgg neex waaye nag euh, mooy li may wax rek. nañ ko xam naa ni sax wax dëgg yàlla dinañ ko entretenir parce que trésor la. Mhm. te fu ñuy fu ñuy fu ñuy fu ñuy. doguma la de wax nga lu am solo. fu ñuy entretenir bi loo ngi wax lu am solo. lu Sénégal mënul dëgg la dëgg la nañ ko entretenir parce que trésor la. bërëbu yàlla moom wax dëgg yàlla rus nga sax di romb di force sachet ndox wala bouteille d'eau. ngalla même ñi nga xam ne ñooy disciples yi nga xam ne ñoo fay dem di fa julli wax dëgg yàlla bu ñu rombee lu ndaw nañ jël daal di sànni. naam sax boo moytu def nañ fa ay poubelle ak yu kenn xamul yooyu yëpp te dina am aussi ñuy chargé ci lool parce que je pense que organisation bi ma gis jaar na yoon. mbàkk yu fay du ko képp kuy jullit sax wala képp kuy murit sax boo rombee loolu war nga ko mën a jël daal di koy sànni fi nga xam ne mooy poubelle mu gën a rafet parce que bu rafetee taaru Sénégal la. dëgg la loolu fépp ko war a def. Mhm. romb loo war a jël def ci mbalit lu fa maal ko man de wax dëgg yàlla li ma ci weekend bi ci kaso dafa ma neex. Hmm. nga ci ci insalubrité. am na ko saa dina jëmbang ci ligne bi allo allo. allo allo allo. soxla de. allo oui. def. maa ci. ci ne. maa ngi nii. yaa ngi ci jàmm. maa ngi fan nga ñu woowee Amore. allo. damaa bëggoon ngeen nga tegal ñu way boobu. ban way nga bëgg. combis. ban. combis combis. combine combine ku ko way. waaw. Paulish. waaw combis. Paulish ngay wër nekk Paulish am na xang sa. waaw kay. waaw. dinañ la tegal combine bira. sama rakk ji dana ne combine lay wër Paulish Mbaye. combis. ah. loo bëgg. combis combis. commune. am ah, wax ko. waa léegi kook sa télé téléphone bi ñu déggante. kii tukulóor la wala allo. daa war a wax wala commune. allo. <laughs> allo loo bëgg ñu tegal la kan moo way. kii mu tudd. nu mu tudd de. ah. comme miis. wuy ma nu mu tudd nga ni. moom musul pare nee lu mu tudd mais dugg si waatal nga wax ki nga xam ne wax dëgg yàlla moom nga bëgg ñu tegal la ko mooy li ma doon wax ci insalubrité gis nañ ni week bi passé tëj nañ Castor mhm. lépp pour defaraat li nga xam ni mooy mooy marché bi ñi ngi saluer aussi liggéey bu rafet bi nga xam ne ministre de l'assainissement ak euh, Fofana je pense mu ngi koy def ci dakaar liggéey bu am solo am solo boo gisee léegi Dakar mbedd yi féex na lu bëri yi nga daan gis salte yeeg yooyu yëpp jëkk yëkkati nañ ko fi te xoola marché Castor waaw waaw sànq laay déglu rajo am benn daam bu ne fay ne lañ doon génne benn néew seen kër dañu obligé jël néew bi lëmas ko ci mat matelas pour taxu ko mën koo génne parce que ñin ñi foofu ak nu mu mel mais xoolal loolu dëkkandoo yi billaahi dama ko dégg sanq sama yaram bi da doon daw parce que ñoom ñi ngi daj lu nekk ay asma ak lu ne te gis nañu wax dëgg yàlla am na vidéo buy jàll fan yi allo allo allo allo allo allo oui oui Amore noo def. maa ngi fi. ci loo maa ngi si jàmm. yaa ngi cool. waaw. noo tudd. Maymuna. Maymuna foo may woowee. man Maris. ah. Maris Maris. Maris Maris ani waa Maris. kooku du sama xarit bi waaw moom la. ah mun naa si yow la. maa la raw. xanaa dag maa namoon moo tax. waaw waaw. billaay maa la raw mun naa yaa ngi ci jaamu maa ngi ci ani seen waa waa ñëpp a ngi ci jàmm. waa ñëpp ñu moom il faut ma seet si la. waaw baax na maa xaar. ah. ma ne waaw baax na maa ah, jël sa numéro de téléphone ci suuf après naa ko jël dégg nga. moom dafa yaru. waaw moom dafa yaru te ndeysaan xam nga saa su nekk day dugg lool rek dafa ne bul coupé jël sa numéro de téléphone dégg kontaan naa bisu Mounass. bisous ciao. merci chérie ciao. déggoo sax li nga wax dëgg la mais tey imaginel koñ boobu lu mel ni marché Kasso. waaw ay buntu kër na fe ngeen ci buntu kër yëpp. dafa am noo xamante ne nag ñun ñoo ko war a jommale suñu bopp. dëgg la te xam nga fii réewu Sénégal mhm. dafa war a yaatu. Mhm. loo xamante ne ay magasin la yu nekk ci ay buntu kër daa mel ni ki ci ligne bi ki teewul. allo. allo waa Régis ñooy wax xam nga li ma wax jeeg am na yoo xamante ni ñoo koy bañal suñu bopp dëgg la ba Papa Ndiaye boo xamee ni fii waroo fee toog waroo fee lal waroo fee tur ndox loolu nit a koy xam waaw loolu nit a koy xam mais nit na fa war a nitee nit na nite lañ wax surtout mhm. ba pare comme marché Castor ni mu demee te marché Castor ku ne xam na ne yàgg na fi yàgg goo xam ne jëlee ko fi du yomb mais comme niñ tëj marché bi vendredi ba léegi ñu ngi yaatalaat xam nga duñ ko fi jëlee sax nag mhm. mais pour defaraat yaatalaat ndax am na fa suñu yaay boo yoo xam ne fa la ñuy jëlee lu ñuy yóbbul njaboot gi mhm. am na fa xale yu góor yoo xam ne tubaarkàlla fa la ñuy jël pour yóbbul seen i njaboot du lu ñuy tëj mais lu ñuy defaraat la parce que tamit ni ñuy jaay jaaykat yi ni ñuy ni ñuy defee pour seen bopp nañ sóoraale dëkkandoo yi dëkk ci kër yi mhm. tamit ñu bàyyi ci xel bu ko defee comme ni ñu defaraatee marché bi rek teg ko ci ay norme rek ñu daal mm-hmm. koy defee ni ko waxee mm-hmm. continuer waat bi dëkk bi yaatu masaalikul jinaan nag tubarkalla yooyu yëpp yaakaar naa du fa am mm-hmm. ku ne xam na ni loolu moom du fa am mais il faut dire la vérité parce que il faut oser le dire parce que je pense que tey marché Castor ñu ci bëri genn gi di laal ci alentour yooyu yëpp duñ ay sénégalais nañu waxante dëgg dëkk bi laisser passer laisser aller bi daf fi bari xam nga sénégalais Papa Ndiaye du dee du nekk sénégalais war a ut magasin même bu fekkee as puqusam la mi ngi ciy suturaal dina dem jéem ko ut wala mu xool fu placé wu nga xam ne war na fa mën a toog mais dañu bàyyi étranger yi ñëw yàq man keroog bi ma gisee vidéo bi marché Castor mi ngi taa mi ngi mi ngi taw ñu jël ay pëlu mbalik di sotti nit ñi di jaar di romb mais loolu ban ban ban maladie la loolu rafetul mooy li ma lay wax rek Sofia comme marché bi dafa am ay magasin ku ne na wut magasin wut table toog ci jëlal am na am na ci marché bi yaatu ñu dëkk ci kër yi dafa am ay place si eh. ça va tu vas bien. ça ¿ah? va ci jàmm. maa ngi ci la. laa bëggoon nag maa sama numéro ah. waaw. waaw bul coupé waa régie jox la ko allah. merci ma chérie merci. comme li ngeen doon wax. waaw man d'accord marché. Mhm. marché ak fu mu war a nekk. ak fu nekk. Mhm. loolu état moo ci war a wax. dëgg la rawatina nag suñu maire yi. dëgg la du foo ay jot rek ne fii kii ba pare Sénégal ñaawte fi fii am yëpp étranger yee koy def. dëgg la comprendre nga. nan ko wax ba pare buñ ko ragal ndax télé moom boo ci waxul dëgg rek wax ci leneen. loolu la te télé li ñuy wax rek man bëgguma tele bu yàqu courant. déedéet bëgguma émission bu yàqu courant. déedéet ñu taalal ay lumière taalal ay lampe ngay wax lu amul njëriñ. man ñuy wax mooy ñu wax lu am solo. li ñuy waxtaane mooy loolu ngeen dugg ñu waxtaane ko ñox ñun ñoo ko bokk dëgg la euh, ministre bi nga tudd léegi. Fofana Fofana yàlla ko yàlla muccal. xale bu ndaw ndax dañoo tàmm bu ñu yëkkati dara ñu naan fii diwoo fi ñaanoon diw moo fi ñaanoon. diw ñaan na fi mais dañuy defaraat pour mu gën a baax ndax defaraat foo ko gis rek loolu xëy na passé na. moo tax suñ maire yi ñu ngi defar ku mel ni Moussa Sy du marché Castor rek de. Mhm. marché Dior yëkkati na yëpp. marché Gueule Tapée. dëkk bi daal tubaarkalla marché HLM. marché HLM H&M yëkkati nañ lépp boo demee marché yi ñu laloon ci mbedd mi ñëpp ñu ngi leen fay jëlee parce que loolu mooy yoon. booy liggéey duggal ci biir am na ay table yoo xamante ne dañ koy loué même pas ay 15000 cherul. donte étranger nga nga dugg ci biir marché lenn nag laay wax nga jël si xam nga lu ma koy man waaw waaw ma dimbali ci marché bi nga xamante mel ni ci de oho kenn du Moussa si mi ngi ci li ko war de yàgg naa mel noonu mais suuf ah, na dimbali ñi fa ne man ñi fa di faatu nga naan lu leen ray te tàggoowuñu ba ñu dee. Ah, feer feebaruñu. loolu boobu yaa ngi koy romb di ko dégg. waaw ma man foofu damay dévier <laughs> déggoo ma de. mais nag wuyu ma ñu ngi ci de. foofu noonu bi may ñëw deux heures man de heure ma fa rombee ne xaa fii lay defaree parfum. maa la <laughs> neex nga fa ne xam nga télé la <laughs> mm. la. waaw mu nekk Allemagne di football. Mm. di ku baax di def lu baax ci dëkkam. moom xaalu mairie dëkkam. dëgg la muy Moussa Koné. nekk international Allemagne. Mm. doomu yaayu Paco Poro suñu rakk jooju yow dañ lay ñaanal jàmm ba xam naa li ñuy laaj moom Cissé moom li muy laaj moom incha allah li ñuy préparé yaa ngi ci biir yaa ngi ci biir a biir kone taalibu sëñ Modou Kara yow bul jaaxal jaaxle ci dara ki la biir ñëw sax dañ la koy may muy Kumba Gawlo ñu dem may la ah am na ko Sadji. ayca allo am na ko Sadji soo fi jëlal. allo. wa rahmatulah. maaleykum salaam wa rahmatulah bi ñu ngi lay ziar. Sofia maa leen nuyu maa leen ziar di leen félicité. ñu ngi lay delloo ziar bu baa yaa ngi ci jàmm bu baax. gis naa taxawaay bi gis naa ni ngeen tey fi ngeen dugg dafa dafa riche. Mhm. di leen félicité waat baax xam nga yàlla suñu borom moo njëkk a bëgg set doomu aadama. dëgg la. 313 la. te moo ne ana saafatu minal imaan set ko bokk ci jaamu yàlla. Mhm. dëgg la. nit boo setul ci sa bopp mënoo sax jaamu yàlla pour mu set dafay jafe. waaw waaw day feeñ sax. yàlla dafa bëgg doomu aadama tax mu ne ko. bala nit di laal sa aaraan sa bii na jàpp kon nit da war a sell ci sa bopp xam yaay kan xam sa bopp dafa bokk ci jaamu yàlla am réew kenn du ko defar ñi fa dëkk ñoo koy defar dëgg la Rwanda da rek kii wuñu ëppale wuñu dara ñu ngi ni zéro déchet waaw mais loolu la ñuy wax xam nga chaque jour da ngeen dégg ñu naan Europe waaw da chaque jour nga dégg Europe eh, ay am ak ay ñooñu dañoo bëgg seen dëkk defar ko moo tax seen dëkk mel niñ mel Mhm. loolu am. waa léegi yow tam bu fekkente ne yow da ngaa dëkk ci sa biir réew mi comme ni ko Papa Ndiaye moom di wax léegi nii ab marché bu ñuy jaayee géej gi di fa jaayee yéen di fa jaayee lépp luy di marché boo fa rombee tey jii mu mu ne bunn waaw léegi moom lañ nga fay jënd moom bu ne maa dina ne bunn sa biir bi. billaay ak nawet bi waxal ci kaw de. <laughs> nee naa ko ak nawet bi tamit. day métti day métti non sa biir bi. non bu nee bunn bu marché bi nee bunn est-ce que du ne bunn sa biir bi. <laughs> dëgg la. li nga wax la kon lu mat a bàyyi xel la il faut que nit ñi jàngaat ak set. dëgg la. du nga président de la république li muy wax set ñoo ci waroon jiitu balaa président di ñu ko ji di ñu ko wax. Mhm. peinture bi li muy def nii di ko defal askan wi ñun ñoo ci waroon a jiitu. ñoo ngi liggéey dëgg yàlla état bàyyi na lu mu mën ñun ñee salté rek. Ah. Ah. xam nga man lu ma ah, posé. man da ngay romb taximaan mu naan sachet ndoxam ba pare génn loxam sànni. bu dul taximaan ñi nekk ci tataay usagers yi dañuy naan ba pare sànni. loolu rek ci sàtte la bokk. te pourtant mu ngi ko téye ba wàcc gis poubelle teg ko fa. waaw mais Sofia. Mhm. dafa am loo xamante ni ñun sénégalais yi ñun dañ koo warta nangu. dépassé wuñu de ñun ñii. war a nangu nit ñu naan. ay ay quartier flottant ay quartier banlieue gis nga ñu dëkk ci quartier quartier ngay wax nag ay almadi ay fii lañ jógee ci banlieue bi. dëgg la. waaw nag léegi bu fekkee nag yow la jógee ci banlieue bi setoo boo demee tamit ci quartier yu rafet yooyu tamit doo ko mën a set. doo mën a set dëgg la Tafa Mbaye 313. Mm-hmm. waaw ñu ngi kontaan ci yow man Tafa Mbaye fi ma gisee ne fi ngay waxee mooy. waruñoo xaar ak ay état ak ay maire. état waroon ko xaar ñun ñëpp di mobiliser wu. di bale di nit waaye di for bu ko ñëpp doon def ak peuple bi ni mu toll dëkk béppay set bu ci état bi yaa ngi tudd benn yaa bi ñuy wax Moussa waaw Moussa Sy moom daa bëgg goxam ba lépp lu mu fay def noonu xoolu ci kii la koy defal wala keneen loolu am gis nga ni mu defaree tali Cambérène bi waaye ñun fii suñu maire bi mi Aïda Diaw Diawara du tous mu ñu defal fii loo xamante ne donc lu mu war a defal fii ci suñu gox. dañ koy tudd wax leen ko gis nga maire bu fi def lu baax ñu tudd la maire bu fi def lu bon ñu ne la yow yaa ko def. doy na waar. mais 313 kontaan nañ ci yow sama doomu ndey sama xarit sama seex baa ngi noonu li nga wax rafet na. waaye tamit damaa bëgg nga xam ni dëkk ñëppay àndoon di ko defal. loolu mënta ñàkk Tafa. dama bëgg nga wax sama fan si club boobu nañ pare ñu def set setal def ay affaire créé. Mhm. fu waañ nekk ngeen créé affaire set setal mënta ñàkk semaine bu ne mën nañ set setal waaw kaa ma xoolal Papa Ndiaye fi yi yeewu nañ ci loolu. Mhm. set setal bi bari na de. gox boo dugg yaa ngi gis ay bonne volonté ay xale yu ndaw ñooy volontaire di defar seen koñ parce que gis nañ ni gis nañ léegi ak challenge bi nga xam ne fan yee passé ñu ngi ko doon def kon ñu bëri set na ci. waaw waaw ñu mais est que dina continuer loolooy wax ci. comme ce que ministre bi mi ngi am ay affaire yu bëri yu mu teg. pour mm-hmm. insalubrité bi yëpp jóg fi xëy na wax dëgg yàlla loolu dinañ ko mën a continuer. mooy li ñuy wax boo seetee ci sa bopp doo seetaan salte ci biir dëkk doo seetaan salte ci biir koñ. doo seetaan salte ci fi nga dëkk. Mm-hmm. man ci sama bopp laa koy njëkkee man su ma yeewoo xaaruma kii moo defar kee moo defar immeuble bi ma dëkk kaw ba suuf. bu taw bi tawee day dugg ba suñ buntu kër mais dañuy jug ñun kër ñëpp ñu defar buntu kër gi defar mbedd mi yëpp mais bu keneen ak keneen ak keneen ak keneen génnee ñu jàpp ci day tax koñ bi ñëpp mu set te bu setee boo ñëwee dañ naan waaw moo tax ah, a defar keneen daje daal di daje parce que loolu moo jaadu da ngeen daje boo leen ah. daje nag affaire bi daal di nekk loo xamante ni ah, day yaatu foofu yëpp day set mooy li ñu wax mais boo bàyyee yow ngay defar kii defarul naan non bàyyi mu defaral ma loolu amul sens amul sens na ñëpp di génn defaral di defar boo defaree defaraloo kenn de sa bopp nga koy defaral ak ñi nga xamante ne ñu ngi déplacé wu di ñëw ci yow surtout nawet bi mooy may faral di wax rek bul bàyyi mbalit yeeg mbuus yeeg bu tawee du suulu li may wax rek éducation de base bi lu bëri nit ñi léegi dañ ko raté ci seeni doom bu njëkk les bonnes actes habitudes da danga leen di jàng da nga koy jàngal xale yi boo rombee lii jël fii école yi dañ leen ko daan jàngal waaye léegi yooyu yu bëri kenn solatu ko ci bopp xale yi pour pourtant nag ñi ko daan sol ci bopp xale ba léegi ñu ngi koy sol bopp xale yi xale yi bu ñu yeewoo nekk ci vacance nii duñ xaar nañu yeewu xam li leen war ñu def ko ba vacances jotee nag ñu vacances yi mag ñu jóg takk ba dëgër en tout daal lu ñëpp bokk na ko ñëpp boole defal rek ngeen waajal ñu waxtaan na ko ndax ñu ñoo bokk Sénégal ñoo ko mën ngeen dugg woote Sadio ñu waxtaan mais dañuy jël clip ah, moom mooy soq couture moom sama waajooju moom mi ngi pare di nuyu nag sama sëriñ sëñ Fallou Dieng di gërëm nag njagañaa njagañaa borom Pikine sama mhm. waajooju yow mënta ñàkk dañ lay bégalee ko mbagolo dem ñëwaat ngeen woote ñu waxtaani ko ndax ñoo ko bokk lu ñëpp bokk lu ne ku ne ngi ci télé bi seen télé la acca bisimilah. xel xel a koy gis maa lox loolu bët gisul xel yi gis mënta ñàkk waaye gars yi xam ngeen ni Coumba Gawlo loolu mooy am na solo moo tax ñun jëlee li suñu xol di ko waxtaan ak yéen ndax dañoo bokk Sénégal buñ dëkkee Pikine mbaa ñu dëkk Kastoor mbaa ñu dëkk Asalem it am nañ ay yitte foofu fu set fu ne dañ war a jaar fu set fu ne da ngeen faa a jaar kon li jëlee suñu xol ñu koy wax waxuñu ko pour ŋàññi kenn pour xas kenn ñun ñoo bokk Sénégal bu réew mi defaroo suñu njariñ la bu réew mi defaruwul ñun ñoo ciy gaañu loolu mënta ñàkk Kumba Gawlo di waykat bu mag chanteuse boobu laa diva li nga wax lu jóge ci xool ci xol la jëm Sofia loolu mënta ñàkk. waaw mënta ñàkk day feeñ ci xool feeñ ci kanam dëgg neexul mais comme li nga wax léegi rek ci ñi nga xam ne ci li nga xam ne mooy thème bu ñu élaboré tey ci insalubrité bi wax dëgg yàlla Papa Ndiaye fi ñu toll nii euh, war nañu mën a dépasser lu bari parce que da ngay dem Europe. danga naan ñii rawee nañu 10 ans 10 ans sax du tax Sénégal xaw a développé ak suuf te loolu dafa ñaaw ci li nga xam mooy sunu dëkk. lan moo ko waral li nga xam ne yu bëri ci ay détails yu ñàkk fayda ay ay ay insalubrité ay assainissement ay yooyu. noonu dafa mel ay Sofia moo naan lii sànniw ko man du ko. sànniw ko ay ay taw bi taana yenn kër yi yooyu yëpp war nañ ko mën a dépassé parce que ça fait des années. ñi ngi vivre calvaire bi. ñi inondé tamit wax dëgg yàlla ñoom aussi ñi ngi dund la nga xam ne dafa metti Sénégal war nañ mën a dépassé yu bari assainissement assainissement chaque année taw bu taw neuf mois ba neuf mois lay taw xaw ma bu ko sax jegee mais yooyu état bi war na ci mën a jël ay précautions yi nga xam ne wax dëgg yàlla ndox bi bu ñëwee mu am fu mu jaar Sénégal wax dëgg yàlla ñu am ñu dépassement tuuti ci yenn yi sax waaw dépassement métti na de. dëgg la ku lu mel ni comme ñi nga xam ne ndeysaan dañuy indante doo mën a tudd ñii di bàyyi ñii lu mel ni ay waa gunaas xale yaa ngi ciy dee ah, dafa metti kon ñun buñ buñ nañ sant yàlla bu baax ñun ñi nga xam ne dañ naan ay mbalit ay mbuus ay biteel buñ sànni mais ñooñ nga xamante ne nii ndox mi yóbbu na seen kër yëpp bu ñu waree togg dañuy dajale ay mool aj ko ci kaw di ci togg metti na metti na trop metti na trop ku mel ne suñu yaay Marème Faye Sall mi ngi ci doon def liggéey bu am solo xam nga tamit bu defee noonu keneen ak keneen kenn moom mhm. loolu am na solo trop du dëgg yaayu li nga def ci réew mi li nga wàcc Pikine ci ay ak ñi nga fa dimbali bari na waaye teewul ba tey des na waaye mënoo def lépp ndax yàlla sax matalewul matalewul waaye yow sa jom ak sa ngor ak sa mbaax wër na mhm. àdduna première dame ah kookooy nag kor sunu papa président de la république Sénégal waaye maa ngi leen di boobu léegi woo ko ma garaawul bàyyi leen ma dem seeti sama papa ma dikkee ñaa ah moom mënta ñàkk moom dama lay yaay Adja Khoudia rek man léegi fekk man nit ka nga xam ne dama naan pat nga naan kii fekk ne yoo ah yow garaaw garaaw yóbbu ma arrangé ma waaw <laughs> comme léegi nangu na da ngay àndandoo yóbbu ñu rek moo loolu mënta ñàkk parce que jeeg baa tey gunaas am na ñoo xam ne dañoo génn seen kër dem dëkk ci école am na ñoo xam ne ci mbedd mi leen dem dëkki wallaahi am na ci Sénégal bonne volonté yi man day am naa koo xamante ni yàlla baaxal na ko te maa ngi koy gis muy def lu baax ah kooku mooy métier waaw Messi moom ku ne xam ne Cheikh Tidiane ba bu Medina. non kooku kenn du moom Serigne Lissa Ndoye. dëgg la maam booy jaawa tamit mi ngi def li mu mën. bari na xeebu ñu kenn Sofia boo leen bippee ñu woo la beneen envoyé message ñu tontu la. dëgg te nag ku ñu teg ci réew mi. tey fii ñu nekk ñoom am na ñeneen ñu fa nekkoon. waaw waaw fii moom boo fi nekkalul nit ñi yàlla géej jëlee la fi indi ñu fi nekkal. loolu la loolu moo am solo allo maam booy jaawa wala kii ministre de la danse et de la allo allo. allo. tu vas bien yokkal voix bi ñu déggante yaa ci jàmm. waaw. noo tudd. Ami Kole. foo may woowee. Kaolack. Kaolack nangaan ani waa Kaolack. baa ñëpp a ngi ci jàmm. waaw. Kaolack baa ñu ngi defa tali yeeg yooyu baa taawu leen. ah kon daal alhamdulilah foofu. waaw. ah kon neex na xaaral ma paas euh, Papa Ndiaye. foo dëkk Kasnack wala Bongore wala fan. Kasnack. Kasnack. Eh, tàng na wala tàngul. xaw naa tàng rek. ana Samba Kend. Ah? ana mu. muy fi. ah kon kon kon kon kon nuyul ma sama waaja euh, euh, euh, Ousseyn Ndiaye. waaw. foo ñu koo ñu seetaanal ni sa yaay wala say mag wala ñan yaa yaakaar ne ci kër gi. man kese. yow kese yow cunnum. moo tax nga woote def lu ko sax. ah dañoo luy appartement. ah ok ok ok mais fi ne yaa ngi kontaan ci 2STV. waaw. ah gis nga Sofia ni mu def tey. Ah, ah xaaral ma jox la jeeg bi mu ci bële bi ma couplé ak moom xaaral ma jox la jeeg bi mu laaj la. waaw sama xarit bi. ci loo nekk. maa ngi fi. ani waa Kasna di nuyu waa Kaolack yëpp. ñoo fi. Ah, mbaa yéen nga tàngaay bi foofu sama yëf la Casaville ah, Sam Ndorong. ah. naka waa Kaolack. mbaa yoo amu fa ak tàngaay beeg taw bi mbaa sonalu leen. yooyu kay dafay bëri. <laughs> Ah. yooyu yaa ngi fépp. yooyu moom fépp la moom. mais jéeg xam lu ma ko bëgg a wax. waaw suba xam nga kan laa invité. waaw. bu leen ma piiraat moom mooy ñëw accident booboo mbaa duñ ko seetaan. <laughs> waaw. doomu Kaolack la de. nga aji jaara. waaw. aji xam naa yaa ngi seetaan di nga ñëw fii suba. doomu Kaolack la. ah aji jaara am na accident booboo doomu Kaolack suba kaw Kaolack dafa saf saaf yéen ñëpp na ngeen ko seetaan. ndax le futur maire xam nga ni moom mi ngi koy pare moom. waaw yow seetaan ko bu baax a baax dégg nga. waaw ñu ngi lay bëggee yaa booy. waaw ma maman ñu ngi lay may ñu ngi lay may kii bi El Hadj Keita bi ñu ngi la koy may mais balaa ñoo dem ci El Hadj ñu demaat ci Sofia ak jeeg bi rek ñëwaat tuuti waxtaan parce que mhm. ñun senegal ñu ñoo ko moom mhm. buntu kër Sofia fa la doomi Papa Ndiaye di fooye mhm. buntu kër jeeg bi fa la doomi jeeg bi di fooye waaye samay doom dañuy génn ci man dem ci sa buntu kër kon nañ seetal fépp ndax ñi jóge ci yow ñooy ñëw ci man ñi jóge ci man ñooy ñëw ci yow mm. dëgg la loolu tax fépp war a set dëgg la mën na fépp set sa Papa Ndiaye mm-hmm. mais man li ma gën a bëgg mooy ñi nga xam ne ndox mi daa nangu seen kër bañ dem dëkk ci école yi école léegi mu ubbi mm-hmm. leen mën a dimbalee ba ndox mi génn seen kër yi bañ mën a delluwaat ci seen kër yi man lool bu amee gënal ma c'est que dafa am problème ah. majeur ya nga xam ni mm-hmm. état rek moo ci mën dara waa population li mu war da koy def muy li nga wax rek insalubrité bi ñun la ah. ñun ñu dëkk ci dëkk bi mm. ñooy salteel ñooy tilimal ñooy sotti ñooy def lépp ñun la mais ay assenissement du ut ay canal fu ndox bi di jaar ñoom la ça fait des années ñu jànkoonteeg ay problème yu mel nii mais il est temps ñu résoudre li nga xam ne mooy problème assenissement bi chaque année dañuy gis li nga xam ne wax dëgg yàlla dañuy dem ba dañ ci am ay mort gis na ay xale yi dañu foofu ba dugg ci ay bassin ndox bi yóbbu leen ñu dee te loolu àq la sax en fait ñoo xam ne bu tawee ñu profité dafa metti ay parents ay parents nekk ci kër nekk sa kër ndox ñëw nangu ko dafa metti dafa metti ñu di la yagar yagar yi ngay dem ci école ak ci yenn endroit yi du sutura en fait loolu neexul ci xol il faut tamit état bi tuuti ku ci mel ni Abdou Karim Fofana ma wax dëgg yàlla man xaw ma ko je suis je mais liggéey bu rafet moo tax ma di ko tudd mi ngi liggéey dakaar mi ngi defar Dakar même hors de Dakar sax mi ngi koy liggéey comprendre nga bu ñeneen ñi defee ni moom parce que comme ni nga wax sànq rek ku liggéeyul dañ dafay jëlee. bul sonn Macky Sall moom dafay désigner ay ministre ak ay maire ak yooyu. pour ñu ah, ku fi def loo war a def population bi moo lay yëkkati ndànk teg la ne la ut keneen kuy liggéey ñu teg amul leneen mais Sall bu mbaaw moom mooy ministre de l'environnement xale xale bu ndaw ci biir dugg ci biir liggéey bi xale bu ndaw day def t-shirt def def jean dugg ci dëkk bi ah, lu bëri lu dul yoon mu ne lii dindil xool stade bi léegi nu mu féexee xool stade bi nu mu menoon dafa demoon ba da doon am sax insécurité loolu liggéeyee koy def ki ma lay wax ni kilifa la Abdou Karim Sall hmm. t-shirt am lay sol sol blouson ànd ak équipe bi jiitu leen ci forme mbalit yeeg yëpp. Ah, def mbalit ah. wan leen man maa koy njëkkee. te parce que xam nga lu tax xam na li tax ñu fal ko. Mhm. Papa bu buñ la falee ministre de l' environnement yow yaa war di for affaire yi. waaw dafa baax di nga maa wax sànq lu am solo. mooy tey da ngay defaraloo ni tali mu ne la tali bi kat dinaa ko defar ñaata meet du war ci def rigol rigol yi da koy tëb de doo ci def rigole mais loolu war naa am lu koy contrôler loolu la war a njëkk def sax contrôle boobu moo war a am Sofia ko joxee liggéey dafa war a am koo contrôler dëgg la contrôler am koo waaw liggéey boo gis dafa war a am contrôle parce que dañ koy defar def ci ay rigole du mu taw mu taawaat te fekk am na rigole de ñun suñu bindukaar gisoo keroog day am rigole ñoom bu ñu demee di plaider fële nga xam ne mooy assemblée nationale dafa war a génn xaalisu assainissement dafa war a génn xaalisu li dafa war a génn état bi day déplorer li nga xam ne mooy somme boobu teg ko sur place léegi pourquoi ñoom ñoom ñi nga xam ne ñoo war a liggéeyal dëkk bi duñ mën a eggal li nga xam ne mooy liggéey bi tax léegi daal loolu ko yeggee dañ ko defee yëpp jug fi ndax wàññeeku na nag bu a baax mais pour mu jug fi complètement ba inondation moom des na inondation dafay war a jóg chaque année ñu inondé loolu dafa ñaaw léegi balaa loolu ñu dem seeti vaar waaw El Hadj dañuy wax ni mënta ñàkk ñu waxtaanee ko ñun sénégalais yi parce que ñun ñoo ko moom. waaw waaw ndax ñun ñëpp ko bokk. Mhm. senegal balaa ñuy seeti El Hadj xam ngeen ni ndaanaan li yegsi na Sénégal ko bëgg. waaw am ndaw li muy wax dafa neex. Mhm. ñàkk ki ñaan mën li muy def saf xorom nawloo ay nawleem. waaw waaw gars yi ngeen préparé wu ndax xam ngeen na neex day gën a neex. nee naa leen suba si daat boobu dana moom dafa dafa bëgg a ñëw taxal nu waaw waaw waaye dina fi daje ku ko gën a raakaaju. nee na ko <laughs> bu piraat. bu ci jegee mercredi ba xam ngeen ni Demba Guissé dina ñëw ànd ak indil ñu lu bees li na neex moo mel noonu. Mm. sénégalais ko taamu yor lu bees fi ngay njëkk a ñëw balaa ñoo dem sa jël ko. allo allo allo. allo salaamaaleykum. maaleykum sëñ bi ñu ngi lay ziar. na def yéen ñu ngi sant bu baax baa yaa ngi ci jàmm. sant kay Papa Ndiaye. maa mhm. la man la Mbaye la. man na Mbaye Diop. ah sama sëriñ maa ngi siyaar bu wér sama mbokkum taalibe bi. ah Ndiaye na. sa émission bi am bi tur dafa ñuy borom. la. Mhm. ndax bu tuddee jërëjëf. mais li ngay def rafet a sama sang ba mbaa yaa koy siyaareel. suñu ko maa ngi koy bëgg lu bari tey sàkku ñaan ci moom di ko wax mu ñaanal sama Sofia ak sama jéeg beeg aji ak soxna. képp kuy jullit. damaa génn nii mbir mi waaye xam naa ne ñu lay seetaan ndax yow yaay ndeysaan ndeysaan loolu dafa leer maa ko bëgg te daw ma ci saala yaay ndeer dëgg la de mënal fii doog laa mënal fële ah waaw ah, waaw loolu mais loo wax ci cet gi cet gi ñu war a bokk ñu ñëpp maanaam loo romb ci mbedd mi muy gaañ nit wala muy tilimal nga for ko def ci mbalit rek jàppale jàppale réew mi waa mais nit bu bu loolu de bind naa ko ba koy waaja way ki bëggul boppam du bëgg keneen ndax boppam la njëkk a bañ. Mm. waaw waaw. allo sëñ Mbaye. waaw. ma nit ki dafa set ci war a set waaw waaw xolam a war a njëkk a set. maa dégg dëgg. bu sa xol setee. ndeysaan. doo doo mën a tilim ci benn mm. allah. ndax fi njëkk set la. dëgg la. tilim dootut man am ci yow dootoo def ñu tilim. ndeysaan. te lu ñëpp bokk la. état du dugg ci kër doole bi ko dalee mbaa du koy rafetal. dégg naa dëgg. kenn ku nekk boo demee di dugal. Mhm. kenn du tax ndax espace yi ñu ko dugg. loolu am na. kenn ku nekk boo defee ko kër. ndeysaan. ñu bàyyi mbedd bi mbeddum buur la waaw waaw cim <laughs> rayete na ma wax na dëgg mbodd mi du mbeddum buur ndax buur moom kenn gisu ko mhm. mbodd mi mbeddum ñëpp la ñu ñëpp ñu jàpp ci ko koy mbay jóob di ko siyaar di siyaar sëñ Fallou Dieng mu baax mi leen wax ni maa ngi leen bu baax ñu dem seeti nag El Hadj mu may ñu vaar loolu mën ta ñàkk ñu xool ko ñëwaat daal di ñëw nag ci gan gu mag gi ñu indi tey ah kooku mooy am ndaw ñu dem vaar may leen ko yéen ñëpp di leen bëggee Sénégal njaay yéen a mam vaar ñu dem te ñëwaat El Hadj Keita mën ta ñàkk mën ta ñàkk bu ngeen neexee bu yëfi jaxasoo ba jaxasoo ngeen ànd dem xooli vaar doomu Medina baa ngi noonu El Hadj doomu yaay Tarba Mbaye nee na xooli VAR bu ngeen toogee ba yëf yi joxasoo ngeen ànd seeti VAR VAR mënta wees sa yaay wala yaayam ah, wala dëkkandoo bi wala kilifa bu leen mën a dimbali yéen ñëpp ngeen am nu ngeen def mënta ñàkk ndax lu duf ci mag di altitude bi Sofia ah. ay waay na neex ñàkk koo seetaan wóorul de man bëgguma émission yàq courant yi ci réew mi président moo ci war a wax nan arrêté émission yàqu courant yi ci réew mi nan leen tëj. waaw te ubbi nay neex muy neex nay neex a fi ne <laughs> nay neex a fi ne moo tax ci biir loolu. ndaanaan lañ fi indi kulli fadrin. waaw kexe koo xamante ni damaa bëgg mu gën a jege si. gën a jege si gën a jege si gën a jege si ndax bu nee ràllit nga ne lan. ñëwal ma xool moo safar statut de. bu ngeen ma baax lu ma neex tali. baax na ñu ngi may tooñ de. tey du ngeen ma baax lu ma neex tali. nettali. ma baax na. eh Amadou Ndaw ne bay nettali. na neex ooma du ma nettali. Amadou Ndaw ne bay nettali. Papa Ndiaye ooma du ma eh, nettali. eh Amadou Ndaw ne bay nettali. Amina Jimbang ooma du ma eh, nettali. eh Amadou Ndaw ne bay nettali. Sofia ooma du ma nettali. eh Amadou Ndaw ne bay nettali. àdduna ngi nii demal maa ngi ñëw rek moo fi am. waaw. waaye eh, bu kenn ma a nam kenn ndax ñoo ngi dem. waaw waaw xoolal Sénégal gaal nañ leen ko joow. waaye bu kenn wengal gaal gi lu lay ku nee ngi ci. waaw ñu ànd booloo rek doon benn mooy suñu njëriñ. waaw xanaa xamoo ñaara man kenn te ñett du bëre. jàmm ak pexem yàlla ak dogalam. mooy defee li ko neex jàmman ci dara. ma du ngeen nangum ndogal. déedéet duñ nangum ndogal. yéen a xam. yàlla buur nag def na ba noppi kenn manu ci dara jëlal sa cër ma jël sama cër yàlla ko defee noonu nga jël sa cër ji jël sama cër ji daray nga ma waay e joxal nit ki li mu yàlla e joxal nit ki li mu e yàlla e xoolal tamit tamit tamit tamit ayoo tamit dama ne lu mu eh, mais mais mais problème am na problème am na c'est ça ah. le problème aminta waaw fan nga jëlee kii ah am ndaw ki réew mi bëgg <laughs> mais am ndaw a ngi nii maa ko loqati ba indi ko fii ci 2STV. Mm. waaw ba pare na indi naa fi ndaanaan. Mm. àndut ak dara. naturel mu sàjj nii dëkk bi yëngu am ndaw a ngi nii Sofia. am mm-hmm. ndaw a ngi nii Papa am ndaw a ngi nii 2STV ak ñi ñuy seetaan ñëpp àdduna war a ngël këpp. Mm. namoon nañ ko ci biir 2STV ndax réew mépp nga ko doon xaar ci suñu émission na neex léegi mu war a Sadji daal di nuyoo mhm. seetaan nuyu àdduna ñëpp biir réew bi cim réew dëgg neexul a ndaw ngoog jéegi tey ñoo indil ka nga xam ne wax dëgg yàlla ku koy seetaan wala ku koy déglu te reetaanoo rek la muy def dalaa <laughs> duggul ñëpp lay daaneel tubaarkàlla macha allah mu nekk artiste ba nga xam ne fi ñu toll ni moom nee naa réew mi koo téye ko ba mu dëgër këj këj loo ne yaa ngi ci jàmm ñu bàyyi la rek euh, nuyu ñi nga xam ne ñooy téléspectateur sant ak muñ ak moytu di nuyu Sénégal yëpp waaw tey rawatina tam Kaolack nangaan nga xam ne fa laa juddoo rawatina Sibassor fa nga xam ne nii fa juddoo Kaolack nangaan la dëkk waaye Sibassor fa falaa juddoo fa laa di bëggee ñëpp tamit di bëggee sama waa koñ fi ma dëkk muy Fadia tey kontaan tamit nag ci invitation bi jimbang li nga def ku la digal lii ah yow tamit Papa Ndiaye Thiouk c'est ku leen digal lii <laughs> ah, waaw ah, yow mënoo ñàkk jaar ndax suñu borom mm-hmm. waykat bu mag bi da ko wax jamono junne ak la cay xew. Mm. dëgg la fi ne nii da ngaa xew. ndeysaan bëri ko ci mbartal nga. ndeysaan te li la ko may xam nga ko. ndeysaan sa xol bu rafet moo la ko may. ndeysaan mais li ngay li ngay wax nii mu set neex saa bongo foo foo foo gisee lii ak foo déggee lii. c'est toi. moi-même. waaw c'est toi parce que xam nga lu waral man la c'est toi. Mm-hmm. ni koy defee rek laa koy defee Papa Ndiaye tu doonatul confirmation ku ne xam na ko. dëgg la. yow da nga naan bëri def ba mu neex te doo ñàkk. mu doon loo xam ne euh, miel la lem ba teg suukar. <laughs> su fi yaa tey da ngaa jom lu amul pank bàyyil. waaw lu amul pank bàyyil. pank. jimbang ko fi teg mooy borom jimbang. maa la wax lii déggal loolu. la fi teg moo tax euh, Aziz Ndiaye teg leen ci télé bi. ak Alaaji Ndiaye Alaaji waaw liggéey ba weer dee te fay la yaayoo grève ku liggéeyal suñu borom dañ lay fay Arabie Saoudite sarayan bu ko fa sàcc dañuy dagg sa loxo te au courant. dëgg la waaye Sénégal ku fi def mbaax dañ la ko wax takku jàmbale màcc sa loxo papa Ndiaye. waaw waaw kon daal may feccee bu set. yaa am ndaw yaa ma ne fu ne. yaa ma ne fu ne. dama fi kii bi fi dooñu fi ku koy jéem te ko doo koy mooke ba mu neex man am maa koy coroke. Eh, Papa Ndiaye dëgg la. yaa ma ne fu ne am ndaw yaa ma ne fu ne. Eh, dama ne xibaar xoolal. Eh, mbir génnaati na déglu leen déglooti leen ma yéen mbir génnaati na ku def dégg ku def dégg ku def dégg ku deful doo dégg dara ku def dégg. dinaa la wax nag yi ñaar gi mbëng boo ko déggatee man ni maa la ko wax. muy lan àdduna boo fi nekkee dundal xatil dëgër. ngay def lu defu te yaa ngi def lu defu di wax lu waxu te yaa ngi wax lu waxu jëmbëg boo koy dundee ah. defal ne fa gi fa Papa Njaay sama waa ji kenn demul bala dëgg la Njaay yaay sa yaay ah, góoru Awa Njaay dama lay woyal góoru Papa Njaay te xoola dinaa la woyal ba mu neex ma def ko solay e eh, jëmbëg liir ko ba mu neex ko mu def ko débat Papa Njaay sa yaaya ma fi yónni ne naa la gërëm léeg-léeg sax ma jaar ca biir kër la sa yaay dalaa gërëm ta doom bi yaay jëgëm te biir kër ga kenn ko yërëm ay ta dangaa làkk ngërëm papa Njaay da ngay liggéey di ko seet lay defoo lu bon di ca boole boo ko defoon di ca laaf rek daa di Sofia yaa may séen mbër maa ko waxoon moromam mbaa yaa may xool mooy sama ndañ ee dama ne xoolal dinaa la waxal nag yi ñaar su boo ko déggatee man ni maa la ko waxal ndax mëkk naa sim naa def naa sële def ma lay ma nekk nii dara fereg yow ma ñeent li ma xam et dama fi ke dem ba tañe ma ta dama jox do wax ma wax loo xam e ci bi yaag ne dinaa la waxal gi ñaar e boo fi naree ñaama ray la ma ray la i boo fi naree ñaama ray la man damay génn place man damay génn place neex romb na neex neex plus neex égal xam nga lan la jeeg waaw damay bàyyi Sofia mu joxe benn question waaw ma bàyyi la nga joxe benn question man moom aw ma lu ma koy laaj non il faut laaj ko déedéet du ma ko laaj xam nga tax ah. <laughs> taxaw naa ku ne way kenn mënu nax ca aar dëgg la am ñëwal nii waaw waaw barke Cheikh Ahmadou Bamba mën mënantuwoo dëgg la na ma ko mënatuloo je prends tout man ñoo laa bëgg. am na am na ko sax maa ngi soxla wax ak moom. allo allo allo. allo si noo def. waa sëñ bi ñu ngi lay ziar ba yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm. alhamdulilah tur bi naka la ak fan nga ñu woowee. Moodu Xalaas. Moodu Xalaas. Xalaas oh. Alma Almadi. yow daa mel ni doom nday ah, ndaw nga de xaama paas la ko yëngal na bopp bi teen na. waaw waaw da nga da ngeen invité baax ku yaayam gërëm. ndeysaan waaw waaw oh, les kitaal muy bien. <laughs> muy patrimoine Kaolack ñun waa ñu koy tiitaroo. ndeysaan ndeysaan. Euh, léegi nag euh, fi ñu toog ci alma di ñu ne ñoom sukay naag jumaak ñëpp. sukay na sama waaja kenn du am daal moom la Kaolack am daal. Mm. wax ko ca kaw wax ko waxaat ko waxaat ko dégguma la. amu Kaolack kenn du am moom la Kaolack am moom la ñuy tiitaroo. incha allah te dañoo bëgg Papa Ndiaye nga ñaan. ren dañoo bëgg a dem Sorano. incha allah ñu ñu teppi ay enveloppe yi un million di battre am ba am xam ci plateau bi. olé qui parle muy bien. qui parle muy bien. espagnol la kat. waaw. yàlla ko yàlla def. am yal na la yàlla fay cat nit ku baax nga li nga sonn sa yaay yal na la ko yàlla fay. dëgg la ndeysaan amiin. waaw jërëjëf jërëjëf. jërëjëf sëñ bi jërëjëf kontaan nañ bu baax. Mhm. ci woote bi te loolu am na solo. xalaas la ñuy wooyee baayam. Mhm, mhm. mbër bëre waaye ku daan wàcc ku gis sa gaynde waa faaye ku yee yàq bukk yee nga yàq yee kër góoru su xëy na borom almadi. yow barki démb ba visa njëkkee génne da nga ne j'ai pas envie de sortir. jël sa frère yóbbu ko jël sa yaay mu ziar ji bayti laay nga jël sa baay tabaxal kër. non yow woo sax parle. <laughs> yow dama am na ko Sadio <laughs> am naa ñëw de moo tax ñu ne allo allo. <laughs> noo def. maa ngi ci. ba yaa ngi ci bi naka la. Fatoumata. Fatoumata foo ñu woowee. Dakar. Dakar Fatoumata tey gis nga sunu gan gii de xam naa ree nga bay bëgg a dee. am na. ah tubaarkàlla xaar ma paas la ko ndax mooy mooy ganu na neex tay kii mooy am ndaw. wuyul allo Fatoumata. waaw. ci loo maa ngi lay bëggee ay conteneur yu bëggee. Ah, allo. allo waaw Fatoumata. waaw. ma ne maa ngi lay bëggee ay conteneur yu bëggee. Fatoumata wolof wala Fatoumata tukulóor wala Fatoumata Guinée. Fatoumata Guinée la. amee si kon amniyaati Fatoumata amniyaati eh mu ne fi na Fatoumata daanaan la Fatoumata nee na li lëkk ate Sofia jëlal waaw Fatoumata daa mel daw lay laaj am tey mais am ah, ah, neex na neex eh, na neex na mi ngi fi mi ngi fi ah, yow laa ko may allo oui Fatoumata allo allo Fatoumata ñu ngi lay dégg ma ne neex na neex na neex na. yaa ko merci beaucoup. maa ngi leen jaajëfal bu baax nag. merci beaucoup bu baax. allo. allo. woy ah, <laughs> merci merci merci. am am ñu gis ni wax dëgg yàlla fi nga xam ne mooy Kaolack ak Louga dañu fay gis tout le temps ni. Euh, ay ndaanaan dañu ay ndaanaan. des personnes trop talentueuses ñoo fay jóge di ñëw fi nga xam ni mooy Dakar tey wax dëgg yàlla bu ñu ñëwee ba Dakar rek ñoom dañuy seppeeku ci ñi nga xam ni dañ leen di ràññee ci ci métier bi ñuy def muy way bi di taasu bi ba ci fecc bi sax wax dëgg yàlla ba ci tëgg bi sax ñoom dangay gis ni boobu ñu tuddee bu ñu leen laajee fu ñu jógee dañ naan Kaolack wala ci yeneen région yi wala dara mm. lan mooy secret wu en fait waa Kaolack ak sa inspiration naka la yombee naka la yombe parce mm. que yow tout le temps boo taxawee da ngay wax naturellement mm. sans bongo ni rien te day neex gaay xaaral mm. ah, ma jël ci ligne bi nga ñëw ci euh, question yi allo allo allo allo oui. allo yaay booy. ñoo fi indi am yaa ngi ci jàmm. sëb yaa ngi nga sant ah, ci cembere <laughs> ah maa ngi trop macha allah. ah Kaolack. ah macha allah tey waa Kaolack de. <laughs> waa ñoo aye moom. xaar ma paas la ko balaa crédit bi di jeex am ndaw. paas ma ko nga nuyu ma papa Ndiaye ci moomu sama. <laughs> maa ah am nuyu naa la man la awa Ndoye Rita Soleil. oh mais awa ana ma namm la. billaay ñoo la raw ñoo la raw lu bëri yow da baax ñàkk ci ñaan. ndeysaan laa gënees nga laa gënees nga. yaa yaa na ba yëpp ci barke yonent bi. allahumma amiin amiin yaa rabbi foofu la. ndeysaan te sama mm. dara ma ko jéem. jërëjëf. kon nga xam ne war na yàgg. yàgg na yàgg na waaw. yàgg lu ne dëgg la ma ne ah macha allah yow daal am daal ci kaw ci kanam rek. ndeysaan laa gënees nga. waaw kontaan nañ. Mhm. ok Alioune. nuyu ñu waa Kaolack yëpp chéri. merci dégg nañ la. waaw waaw Sofia. Hmm. Kaolack la ñu dëkk. Hmm. usine Sané fa la nekk. te mooy defar xorom. waaw danoo saf sàpp xorom nag. waaw dëgg neexul barke yi ñoom yonent bi. <laughs> maam Mbose sunu ma ëpp na maam Mbose sunu ma ëpp na. xam nga li ci àdduna bi ku ne mën na cee wax. boo xoolee sa bopp rek taasu. Mm-hmm. waaw ndax suñu réew mi ñun ñoo ko moom kenn waru ko xar ñaar. Mm-hmm. ma ne leen sànq bu kenn wengal gaal gi lu ne ku nee ngi ci. loo gis lu ne rek tem la. Mm-hmm. li ci àdduna bi. waaw wax nañ cee war a wax te dafa am solo. mooy maanaam ni Papa njaay léeg-léeg mun a bëri def ay clem inspiration la. barki ñoom yonent bi. Kaolack nag dafa bëri ay ndaanaan yu fu jógee. waaw ñoo xamante ne lu ñu wax ñu ne cey ku mel ni sama frère Papa Ndiaye Samb Coppet. Mm, Coppet Papa Ndiaye mi. Mm-hmm. dëgg neexul fa mm-hmm. taasu yegg nag doo ko faarut. waaw da ngeen di ràññee ko yaa xam jire moom jire mi si mbéy saa xëyaa nga làmbaay. da laa bëgg yow daf ma bëgg sama frère la. Mm-hmm. waaw Seydou Awa Ndiaye bàyyi Mouhamed. waaw waaw tey dafa gën gën hmm. ñoom aji jaara ñang waaw waaw waaw ñoom Ablaye Diak. bàyyi faale fa nekk tey nga waaru ni béy bu jur paaka. ni béy kooku bamba mooy baayam. Ah, waaw waaw Fatou mooy yaayam. non yéen yabaate wu leen fa. <laughs> dëgg la waaw tubaarkàlla dañuy am contentement dañuy ànd euh, am ndaw ci suñu émission la neex ah. di ci kontaan ndax réew mépp nga ko doon xaar tubaarkàlla mm. léegi nag am ndaw man sama question mooy duñ du ma la waxati la am ndaw Kaolack ndax fi mu ne li ma bëggoon laaj tubaarkàlla maanaam Sofia wax na ko Kaolack nga jógee mm-hmm. réew mi xam nañ ko fi ne mm-hmm. léegi li ma bëgg a xam mooy am ndaw noo dundee euh, Sénégal ak ku la bëgg a jot sa numéro téléphone ba pare am ndaw soirée yi ba xam mm-hmm. yaa ngi ci parce que tey dañoo ñëw gis la nga daan indi bongo yor tama nga ñëw ak naturel ku ne xam na sa fort fi mu dalay wan boppam day wane boppam ndax tey dafa hmm. mel dafa ñëw wane boppam nii hmm. sans bongo sans tamate ma xam la bu baax ci yooyu ngay def tubaarkàlla balaa ngaa tontu dimbali ma rek joxe numéro bi ndax ñun ñuy waaw ñu waaw balaa moo tontu waaw Papa Ndiaye waaw balaa moo tontu sama numéro 77 113 38 96 waxaat ko 77 113 38 96 c'est mon numéro jeena sa numéro ngi noonu ku bëgg a jot am ndaw rek ci numéro boobu mu jàllale nga koy jotee mais question bi ma ko laaj mooy loolu mhm. am ndaw ndax mi ngi tëgg ay soirée mhm. wala ci xew yi rek nga ko yemale wala mhm. ci mariage yi rek nga ko yemale waaw ndax yaa ngi tëgg ay soirée ak li kii wax léegi dafa am solo ndax réew mi nag ñoo la bëgg ndax gis nañ tiktok yi statut yi xale yaa ngi koy jëlaat di ko selaan di ah, du neex yooyu noonu tamit ah, am lu waral nga ne fi waaw mais lu waral nga ne fi tamit xew gi pourquoi xew gi moom waaw ni ma lay wax naa ne aar ak taara ya mm-hmm. dëgg la mm-hmm. loo cay def def ko sa daar jaar mm-hmm. dëgg la sinon jour dana ñëw mu gàddu kayam tanaan la si trop tard ah, <laughs> déggal boobu wax waaw ku xew di ci may li nga wax léegi waxaat ko am na solo ngay naan doog a taar ñoo yem loo cay def ko sa daar daar sinon jour dina ñëw mu gàddu kayam tanaan la si ah, trop a waaw léegi nag ah, am li nga wax kii tontu nga ko sama yaay Marème Ndiaye mi ngi jàkkaarloo ma ngi ca bureau ba loo ma koy waxal ci lu baax ak gaay waaw affaire TikTok bi. TikTok bi ñëwal ñëwal ba pare. TikTok bi xale yaa ngi waaw man àdduna wax dëgg yàlla Sénégal sax àdduna lépp laay wax aw ma seen fay ñoo ma bëgg. dëgg la yenn saa yi damay gis sama TikTok. waaw damay sax euh, damay am ndeysaan kontaan boo xam ne su ma sañoon képp koo xam ne mu ngi may TikTok ma dem këram. ma la mën naa seetaan benn sama TikTok boo xam ne dama jooy. ndeysaan benn waajoo xam ne handicapé la. Mm-hmm. bilaay day fecc naan lu daloon yayaa di ci def amour boo xam ne dalay leer ne kii. accup loole. dama ko xool rek tëdd sama accup loole. loolu mooy lan waxu njaago la. <laughs> dama dama ñëw rek daal di. ak ayam njaago yi loo xamante ni lu ma ci neex la. nga am ci yëg loolu am na solo mënta ñàkk nii mhm. xam nga ne li mu wax nii dafa am solo nit ñi di ko doxoon toog tiktok yi mhm. xam nga statut yi ñëpp di ko bëggee te pare ñooñu noonu nga xamante nii munoo jot ci ñoom comme li nga wax léegi ku ma ci mënoon a jot ñëw sa kër dem sa kër mais mënoo dem ci kër ñëpp moo waral ma ñëw ak foofu ci question boobu bu ko defee na nga profité remercier leen kontaan ci ñoom ak yooyu yu baax yooyu damay tëgg xew na solo waaw nga wax ci yenn saa jàkkaarloo damay jël orchestre bi technique Papa Ndiaye waaw mën ko ah, waaw waaw woykat bi di ma dar di dagg lu neex sama doom jooju Badou mbay ma téye sama micro di taasu di diriger yor sama xalam ci suuf muy xalam lu simple guitare ay daw dama koy def barke ñoom yonent bi dëgg la dafa am lu sa doomu ndey di wax doguma la mm. muy caat sec mm. damay gis artiste bu ñëw mu ne la dañ ma daan ñamal góoru fanta mbay faaw ma ñamale góoru fanta mbay ma gis la nag yow am yow ñëpp nga bëgg moo tax pour man yow fi nga war a yegg sax mm-hmm. ci kanam tuuti incha allah dinañ gën a dégg am ndax da ngaa yëg ñëpp mais moom ku dox da daan ku dul ñamle doo ñamal caat sec mais léegi nag sama yaay ma ne Njaay ma nga jënd ca bureau ba waaw mm-hmm. la ñu dénk Alaaji Njaay mi moom fii waaw loo koy wax doo ko dem bu bees bi waaw loo koy wax sama yaay maram alaasu njaay ma fi yónni ne naa gërëm léeg-léeg sax nag ma jaar ca biir kër ga di la sànni ngërëm sa jëkkër dalaa gërëm te jeeg bu jëkkër ba gërëm ca biir kër ga kenn du ko yërëm te danga làq ngërëm nee na doo rendi goro ah. ndax rendi goro daa jarta daaf paas ko goro boo ko tàggalee dooma du rendi nga ko doo rendi njëkke ah. ndax rendi njëkke jarul daaf paas ke njëkke boo ko tàggalee càmmeñam rendi nga ko am nga cas am cacas cacacas am nga ay cacas e xoolal sama papa ma fi yónni ne naa la gërëm <laughs> dootul takk dootul takk dootul takk. Eh, carte bi wii la tey yaa bëgg. Eh, loolu foor na dootul takk dootul takk. la dootul takk. dinaa la waxal nag yii ñaar yaay booy bu ko diggatee man mi maa la ko waxal. ne leen doomu mbër. adé mbiru mbër. ñu xam ne mbëray yaayam. muy yaayam. sunu mbër ñu xam eh, sa wëy bi dafa tombé daaw gerte gi ñor nañ ko mbaxal mbaa nga nit ko dege eh, eh, yaa ji may ganti sama xol bi doo toog lan la yow doo toog li lan laati la doo toog lan la yow tamit lumu <laughs> mi ngi noonu mi ngi noonu ndaanaan la ñëw ndaanaan la ñëw kuli fadirin ñëpp bu jommi waaye balaa ñoo dem fen dañ koy bàyyi ñu tegal ko kilibam yéen waa Redi mu jàkkaarloog yéen ma ngay naan Aquaterra Mamadou Yatasaay ko jox ndox mi nag moom amul ci àdduna hmm. Mamadou ah, ndox mi da neex nenex neex laa ko tuddee la muy saf na Aquaterra yi noonu ak Mamadou Yatasaay ko kilibam ñu doog a ñëw mu ak gaayam yi yi Redi bu yembee rek ngeen puux ko léegi am li li ci mag yi xajul ci tin ndax naanaan la. ëpp na kii damay bëgg Sofia mu ñëwaat fi jeeg mu ñëwaat fi mënta ñàkk acca. waaw ndax ñu play back acca. Lady Ngom yal na gudd fan ku ne amin yal nga gudd fan. Lady Ngom yal na gudd fan ku ne amin yal nga gudd fan. xanaa xamoo courant ga ca Makka mooy taal ba ci dër. Eh, ne mise ya ca na mu nga Jérusalem kon nañ ko baranse ci yàlla lépp. muy na dara nga ja ku ci amul connexion ubbil so doon nañu partage la connexion nga daal di sinab lii ndax kat xel dafa dégg ndigal foo ko teg rek daal fa lay tegu ak a dégg ndigal xel day jël lu baax léeg-léeg mu jël lu bon waaye li ci xel li ci bët li ci xel bu bët e eh, xoolal sa xel bi def na la wàllu daal boobu juddoo ko nit day xalaat lu baax bu sottee leer waaye booy xalaat lu bon bu sottee gaañ la mu yéen lan la xel di jëriñ xanaa du xalaat nit day xalaat lu baax tey def lu baax tey dem fu dem di wax lu waxu di def lu defu Cheikh Anta ku koy dundee defal never give e bul toppatoo bul faale bul suuraale sax yàlla musal ci xeluk safaan mooy xel bi nga xam ne daa lay àndir soxor ba da ngay mujjub añaan mo lan la xel di jëriñ du xalaat day xalaat lu baax def lu xel ba defar baax est xam na ñaata la xel ba defar góor est xam na ñaata la rey woo xel ba defar ñiim nag xamul ñaata lay de xel ba defar bombu xamul ñaata xel amul yërmande billaay wallaay amul yërmande ndax xel bu amoon yërmande nit daatu xelaat jël doom sax jatt ko sànni bale kon amul yërmande nit du yor jikkob mala waay woyee sama woy bi maa ma piraat kii soo ko woyee sa woy bi sañu la piraat moo ñaata yoon laa fent sama taa suñu di may piraat góolu sama vocal yi ci whatsapp ngir di machine ab eh, yaa ngi may gaañ sama xool bi kat nag doo toog lan la yow doo toog lii la doo toog lan amoo loo taasu yow amoo loo mu taasoo man dañee man wéetal ak sa xel naan cal sa xel ji ma def lu leer naan ñu ko temps bi te xam ne Sénégal a bëri déglukat ak neewi ay taasukat moo tax ma ay taasu bañu di piraat kii su ma ko wuyi wuyu jaag piraat kii soo ko wuyi wuyu jaag sañu la piraat kurut ulef ayes xàlla am waaw naanaa tasa ak waa Terra mu di yenn saa yi ko indi ci réew mi. waaw waaw le temps ñuy waxtaan nga naan. <laughs> Mhm. Sofia. waaw jeeg waaw.

elle est tombée am elle est tombée am. booy booy ah, ndox la eh, eh, bu leen ma sosal nag. ah mère mère du soxla wax. ah bon moom na ree rek. waaw sama papa. na neex lu daal. ah yow xam nga. <laughs> Soufiane sama xarit la. <laughs> Soufiane sama xarit la Papa Ndiaye. may profité itam di nuyu samay nit. wax nga la waaw. ku mel ni ñoom Farma Boy ñoom Awa Aw Diallo waa Kaolack yi Sibassor ñoom Fat Diallo Amoore Daouda suñu ah, waa kër ñoom Sophie Faye maa ngi ñëw Kaolack la woon avant Dakar ñoom Sophie Faye ñoom ñëpp sama waa kër yi maa ngi leen di nuyu ñoom Gagne Siri jaay waaw Eva Sañse waaw maa ngi leen nuyu Ndeye Awa Seck ca Dakar ca France tamit te tamit di nuyu ñeeño bala maysa bi xamu leen ñeetaate dañ leen di ñee Serigne Touba ko ñaanoon te yegsi na loolu de waaw borom Pikine waxal ca kaw de. Aïda Thiam borom Paris. doomu yaay Njuga moo dëkk Pikine. waaw doomu yaay Njuga Thiam. dëgg la. borom Paris loo baax doyul. ak ñaga ñaa ak ñaga ñaa. waaw waaw. doomu yaay Njuga Thiam doomu yaay Njuga Thiam lu ngeen baax doyul. mais lii kañ la génn ah. naaw yaay ak ñaar taxaw. waaw. lii kañ la génn clip bi waaw. waaw tubaab waaw clip bi temps yeeg suñu xoolal lii. caaman yaa ngi ñëw moo ko ñaanoon te yegg si ay eh, askanu ñeeño bala may sa e dama ne xamu leen ñeeta te dañ leen di ñee ah. loolu Serigne Touba ki ko ñaanoon tey agsi na e xolal kuy mere na mere yàlla moom mi la bindee ah, baax sa yaaya jurul lu na yaa ci nu cere ju ënn so fi dundal xapil bégel dam na waa koy fab Papa Ndiaye mënul ñàkk mënul ñàkk am kenn doyul ci moom waaw tey gërëm tamit sama jigéen bi waaw Jimbang lii yëpp yow la. dëgg la yow yow yaa yow yaa provoqué lii. dëgg la. doomu ndayu Kia. waaw waxal de. doomu ndayu Feuz. yow yaa programme lii ooma. waaw waaw ma ne la jàppal date bu la neex convocation dañ koy wujji man police bu ma woowee dama koy wuy ji. <laughs> wuy si nga ba mu bëri. papa Ndiaye ci sama frère yàqu ci dara. la gëneuse. Mhm. fa fecc yegg nag da nga ko faa rukk. barke ñoom yonent bi man boobu taasoogu ma sax aar nekk Kaolack nangaan boo doon fecc dama naan Pape dama ko bëgg ki dama ko fan ngénteel Awa Ndiaye da wane ko am que ba nga di ba nga toogee nag di mayee di mayee ba keer gi sedd nit ñi di toog danga nga xataraay boobu deret sa deret lay xeeñ billaay nga fittar ñu ko fecc loo xam ne ànd ak ñoom ëmadi billaay waaw ole oh, kii taal muy benn mm, sama clip bi sama clip bi clip bi temps yi la génn mm-hmm. studio bleu ñoo ko def ñoom Papis Ndiaye ay ndaanaan ay ndaanaan. ay ndaanaan yu Papis Ndiaye dama ñëw studio ba. Mhm. mu téema. jaaree la feneen. non ne ma dangay toog yow man maa la gérer te la mu ba léegi dañu ci. macha allah Papa Ndiaye euh, kii euh, Papis Ndiaye. Mhm. boole na ma vieux mhm. mu nekk sama coach naa ma defal nii defal nii jël Samba Jayte. jël sama loxo jox Samba Jayte mhm. mu dema téye di xàllu yoon bi may jox ñëpp loxo nag képp kuy artiste Dakaaru Njaay seen doom ñëw na seen ah. xarit ñëw na jóge Kaolack naagaan dëkk Mboose Kumba jigéen ba fan sama producteur producteur Pape Diouf dama la yóbbu ci Matar Diop suba teel olé Matar Diop suba teel mi ngi lay seetaan damaa bëgg mu produire la mhm. yóbbu la Zénith yóbbu ok doog lay dëgg la mën nga ko ëpp na xam nga bu ndëpp saajee rab yëpp yëngu looy def amul pank bàyyil. waaw ñi ki man. waaw day bëgg ki man. man moo tax nga bëgg ki man. dëgg la nee naa aar ak taar ñoo yem wala déggoo ma. waaw loo cay def def ko te trop tard. sinon bés dina ñëw mu gàddu kayam bii. di tanaan la si trop tard. waaw day dem. bés bu ñëwee respecté ñëpp bëgg ñëpp. surtout wàcc sa bopp. man sama téléphone bi ku ma si oo jot ma. damay wax ak ñëpp. ku yéeg wàcc. Mhm. ku yéeg wàcc. lay wax waaye nag maa ngi tëgg ay jàkkaarloo ay anniversaire lépp di ko rukk. dëgg la te du loolu. dafa sax non kii kii man du ma dafa ah. <laughs> gis nga looy def. waaw def kaa ko. say ah, filimu xapi. naturellement ñun ñëpp ñoo bokk Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa suñ der bi ñuul mm-hmm. marché ba yaa ngi gis kee yor taabal kii yor taabal léegi-léegi sax kii nit ñëw jënd ci moom mu ko wécce ma yow xam nga loolu nag ñaaw mm-hmm. la nga war a am kenn mënu ka jël moo tax ma ne ma jëlal sa cër ma jël sama cër yàllaa ko defee noonu. man ko xam loolu nga jël sa gi jël sama cër gi nga ma Papa Ndiaye joxal nit ki li mu yelloo. waaye Sénégal lu waaye waxati na ko xam ndax axiru zaman la ñu toll looloo di mujjub jamono déegi daa gaaw da ngay ànd nit ba ngay tudd daan def daan dundandoo yàlla ubbil ko wërsëg waaye ubbi la guru wërsëg xolal mu jël la mu am di la ca teral ba nga tedd ngir ba nga naat seytaane ca teg bëtam di ca wax lu bon di ca def lu bon xoolal ba tàggale leen bilaay Sénégal a bëri gaa ñu baax waaye moo bëri jëf yu ñaaw waaye jàmm fii am jàmm rek a fi war a am ndax bu kunta masa jaasa du fii la tëdd waaw eh, laay ma ca yoof nag du fii la tëdd mu yéen xadim rasul ma ca tuuba du fii la tëdd xoolal seex al islam Medina Baay du fii la samba corofal samba jay la ñal maam baay góor ga juddoo tay ba kii moo yoroo koosi mooy baayu papa daam Moustapha jëloon doom ja Faatumata Dakar daa di koy dënk Seydina Aliou yàlla may ko ñaari Cheikh Ousseynou ak Assane Cheikh al Islam jëlaat doom ja Fatoumata daa di koy dënk Seydina Aliou Cissé yàlla may ko ca Cheikh mu Imam Assane waaye dëgg ga woon démb waaye del seeti naa xoola ne maam bàyyi yonent bi xoola dinaa la waxal nag yii ñaar billaay bu ko déggatee man mi maa ko waxal Papa Ndiaye say famille ma fi yónni na la gërëm Papa Ndiaye ngay liggéey di ko sellal defoo lu bon di ca boole boo ko defoon di ca boole day sax la la daloon yayaa dalu leen na leer ko ne li mu def mu ñëw oo geer ba mu ñëw mu daw nëbbatu ka ne laay ba geer ba jeex mu naan gaam bi dama leen bëgg. waaw waaw mais Collé Xaya ne leen Collé Xaya. e ma ne kool xoolal sa ma fi yónni ne naa gërëm <laughs> e da ngay liggéey di ko sellal defoo lu bon di ca boole boo ko defoon di ca boole day sax laaf rek daal li fi ki fi mu fi dañu fi ku koy jéem te mën a ko doo ko ki koy moo ba mu neex la yow yaa koy corote dama koy dagg boo ko dagg dinaa ko dagg boo ko dagg duma ko dagg yaa ngi may gaañ ci sama xool di tax boo toog lan la yow boo toog lii la laati la dootoo ma laay. <laughs> musuma gis lii musuma gis lii musuma gis lii. waaw waaw. ndaanaan kulli fadri na fi jaaroon. ñu koy wax am ndaw. borom si ba soor mosu fee ñëw Sofia jommi ndax rab la. maa la wax lii mais tey daal jommi di ngaan di xool am rek am di ko dajji. am ndaw sant ak ñeel gërëm na la. ci mhm. am loo wax ak géej bi man maa ngi gërëm Baba Ndiaye. waaw Moustapha Mbaye 313. di gërëm nag euh, online ak euh, ya ma gën a xam Ndiaga Niang bu mag bi ci sama doomu ndey maa ngi lay gërëm bu baax a baax Matar Diop suba teel Diouf a ñoo ko bàyyi sama papa Diouf xaarim Diouf bëggee naa leen dama xam ne mooy ambiance te xam naa ne téléspectateurs yi toog di seetaan tam dund nañ ambiance waaye dund nañ ki nga xam ne aussi mooy un homme talentueux wax dëgg yàlla mu wax fi lu am solo def fi lu am solo mais également ñu ngi leen ñi nga xam ne yéen a toogoon scotché la 2STV waaw si daat boobu dëgg neex incha allah suba ñëw dina ñëw ak ki nga xam ne mooy aji niveau totalement Kaolack la ñuy def nee naa leen fu ñu toll nii xoola ak vacances yi nii dara narta yomb waaye maa ngi remercier spécialement ma madame Thiam wax dëgg yàlla tay moo ma laal ni ci kaw ba suuf ne ma da ngay dem doxantu ji ma lay laal li nga xam ne rek mooy jesner bu ñuul nga daal di fa laal def sa petit gramme bu waaye maa ngi nuyu sama ami Instagram yëpp spécialement à Sougou Adja gis naa sa message merci beaucoup wax dëgg yàlla la lionne est de retour maa ngi ni dugg si ah ni nga noonu noonu neex na ndax réew la doon xaar Sofia ah, ku ne xamante ne dangay sàjj yi <laughs> lundi ba jeudi waaye ku ne xam ne bëgg divertissement lay wax tous les lundi ouverture bi dama leen indi lu am solo saa su ne nii lay demee surprise bu ne mu tous les lundi jeeg bi sàjj ah. ku ne xam ne ne 570 rond point yi fi nekk yëpp maa ngi bon moom koy sàjj ah, fa la ko toog waaye nag buy ma eh, dama keroog fii benn téléspectatrice dafa woote ne jeeg bii ñëw chaque lundi war nañ du ñu baaxee yëfu jeeg ndax kat Sénégal xale ndaw yaa ngi sëy te soxla nañ ñu baax yi dès à partir de lundi prochain il faut nga indi yu baax baaxee ko téléspectateur jeeg su ndaw si waaw nga wuy sa tour nag waaw jimbang loolu mënu ñàkk Sofia loolu lool ñàkk parce que jeeg laa woote te jeeg laa te du ma jeget loolu day ñëw mooy li ma la wax surprise surprise du ma jeget jéeg laa te loolu di ngeen ci xam dara ci kanam a kanam saa su nekk rek saa su ne ay surprise yu bëree bëri tey nag du dem te gërëmu ma ki defar sama bopp bi ba mu jox ma waa Tima ko waa fii ñu ngi ci Bourgui baax ah boo demee di fa fekk gérante ba Nora numéro téléphone bi di 77 748 39 83 lañ lay toppatoo macha allah defal ma lu sedd ma naan taaja ma ma lekk ba suur du ma ah. dara ma demee ci salon sept heures du matin laay xëy ñëw ndax ngeen may toppatoowe tubaarkàlla mhm. du nuyu Anta Thiam madame Diongo ah, jaar ci sama bëlëb bi ne muut massage bi fa la ale jëmbang du ma jegeet jeeg la ah, ma joxe numéro Amati Diane 77 5 963 41 92 Ah. wax am dara amul mais nag tubaarkàlla Ahmed Tidiane ku baax la mais mm-hmm. tey mënul ñàkk ma dugg Paris nag wax naa la sànq ne la damay sajji romb frontière yi ak lu ma saf daal di dugg Paris daal di nuy xooy ah, sama papa jooju tubaarkàlla xooya mbay demba ah ngiraan mbay demba yaa booy mbay demba may sa bégé mi ci kàngaarloo sama papa jooju tubaarkàlla bàyyi Habib ak Soda ak Mohamed ah kenn du moom bàyyi jeeg bi ci point bi waaw da naan suñu xarit la kooku tubaarkàlla ñu juddoo ci keppaaram yëpp namuñu dara dañuy falaal dañuy sàjj waaye du dem te nuyu ma biram ku ma njaal di kontaan ci ñëpp te heure bi des ah. a a nag ma jege yaay booy maay kontaan ci yow ma mandate di kontaan ci sama yaay yëpp yaay ñole yaay kumba dàgga samay bàjjan waa ndar di kontaan ci ñëpp sama famille bu ma limee juum kontaan naa ci àdduna yëpp ndax ñoom ñëm ñu ngi may bëggee sama ami Sénégal sama ami Instagram sama ami Facebook limal waaw damay lim ba bëri ma tee yaay ñoom yaay na ma lënd ba ngay ñëw defal la sax <laughs> la ma wax ndax lu may jël heure bu ñu duggee Paris dem Zénith wala Paris waaw bu ñu paree moo ñu defal ceebu jën ndax xam nga ni sénégalais moom waaw dafa bëgg ay palaam fu mënti nekk dafay dem série Pape sàmba maa la wax lii kooku daf ñoo jig daa ñëw defaraat lu bari Pape Samba di sama doomu ndey di sama xarit di sama simoo dëgg la kooku ni mu def yaayam ak ni mu def ay famem kontaan naa ci daa ba njàngat jigéen ju mën góor dëgg la ndax jigéen li ngeen wax ci jeeg rek jeeg war nga fay indi sa yëf xale jigéen yi nañ seen jëkkër waaye jëkkër nañ yërëm jigéen ñi mm. ndax jigéen bu ñu la ko dénkee bëgguñu nga dóor bëgguñu nga saaga dëgg la te raa bi njaga raa bi mi nga xam ne dañ maa yëpp sonal ma dëgg la su ma ñëwee ah, mu def ceebu pucca paaca paaca sama xol sedd na ci yow am ndaw yow guddal fan yow am ah, li nga def fii Sofia kontaan na jee kontaan na dagg la sama yaay kontaan na waaye xam naa ni sama papa El Hadj Ndiaye dina la convaincre ndax li nga fi wax xaw ma ku la ko wax loo <laughs> waaye du ñun yaay ñun waxuñu dara papa am mi ngi noonu di wax Petit Gueye borom soq Couture yow mënoo ñàkk a ñëw sëñ Fallou Dieng maa ngi lay bëgge njaga ñaa la grand publicité de Pikine mënta ñàkk gars yi ñu dem bàyyi leen ak Sofia wala jeeg ñu may leen clip ba subaak jàmm xam ngeen duuf ci nag xaju ci tilli ñu di falaaleel ba subaak jàmm ngeen kontaan xam ngeen ni wéetal bi ñëw na Sofia wéetal bi ñëw na jeeg bi mm. wéetal bi ñëw na Adji Mass wéetal bi ñëw na soxu kon ba subaak jàmm may ma clip régi ñu falaale saa ne ko waale demaale ñibbi waale I ain't see you long time, Senegal.